mais loolu mooy yoon sax libéralisme bi président le président de la république Macky Sall la ñu nekk ci gouvernement bi yëpp ay libéral lañu ay doomu Ablaye Wade ñoo nekk fii ay libéral lañu ñun ñëpp ay libéral lañu. mais est-ce que gisoo ne xaajaloo maanaam ñu woo leen keroog yéen libéral libéraux yëpp ñu leen ñu ngi fa woon mais yéen nekku leen fa woon. waaw mais loolu mënul gàllankoor. non mënul mënul gàllankoor dara ñun rek PDS rek parti bi ko gën a rëy Sénégal fii amul. parti bi ko gën a rëy Sénégal laa la wax nii actuellement nii nii nii ma fi ñu toll nii amul. mais est-ce que yaakaaru leen nag ak retard bi nga xam ne yëpp ñu ngi koy dund depuis ba léegi Sénégalais ñun ñëpp dañu téye suñu suñu nooyi est-ce que il n'est pas temps aussi ñu avancer parce qu'on a assez perdu de temps perdu lu ñu dara nag. Hmm. perdu lu ñu dara fi mu ne nii. lii du dara yàgg ma ci àddina élection war a jub si problème yi mel nii am ci àddina bi. bu mel ni am musul am. waaw je ko gis. bii moom musuma ko gis xam nga lu tax musuma ko gis parce que suñu candi candidat bi ñu rëkkale di doomu Sénégal dañ nga ko gën a nekk sénégalais Karim Wade loo ko nekk sénégalais kii gënu ko nekk sénégalais kon dañ ko waroon a bare bàyyi mu jàll kon yi yëpp du am dañuy dem élection ku gañ a jël ku man sa duma mais du ñu dem ànd ay moroom toog ba yeg si fii Thierno Alassane naan ko naan dafa am double nationalité mais double nationalité ñoom ñëpp ko am double nationalité ñi ko am bari nañ bu ñu leen génne woon tey dëkk bi wàcc yoru ñun suñu carte d'identité yi dañ ko téye te ñëpp nag ñu ànd ak am na ñoo xamante ne dañu ànd ak ñoom am ñu carte d'identité. ñu génn dem bëri na de. waaye yow yee xale yi ma réerandoo la ñu ne itam ku fekkee jamonoy Ablaye Wade jamonoy Senghor Abdou Diouf Ablaye Wade xam ne ma réerandoo la ñu dem rek ba ñu ba rek ba ñu nangu ko tey. ñëpp xam nañ ne Karim nationalité sénégalaise parce que musul réclamé wu beneen nationalité parce que am na ñu ñu fi wax ay waxu nationalité xam ngeen ko. mais Karim musul réclamé wu nationalité lu ko booleek beneen nationalité peut-être juddu la wala yaayam dëkk fa mais demul dëgg tànkam wuti ko kooku ba mu juddoo la ko doon donc loolu réclamé wu ko moo tax texte droit yi dafa war a am dafa war a am esprit aussi comprendre nga tey par exemple bu ñu naan double nationalité da ngay def effort dem wuti loolu noonu mais loo xam ne defoo effort ba pare ñu ne lañ la si ci loolu noonu du loo xamante ni droit la parce que droit éthique bi moom moo ëpp doole technique bi yaakaar naa loolu am solo la loo xamante ni luñ tenir la donc bu ñu waxee waxu tooñ ñun tooñuñu kenn yàqaluñu kenn taaluñu yëfi jàmbur kenn baarewuñu route terewuñ kenn dem liggéey li ñu def moom mooy li nga xamante ni moom la ñu euh, yoon may muy attaquer décret bi nga xamante ni respecté wul les léegi nag waxu yeneen candidat yi peut ñoom dañuy nekk si li dalal seen xel mais ñoom ñëpp xam nañ ne ci condition yii nii nga xamante ni moom lañ mal réew mi mënu cee dem élection bu ci demee élection tamit lu waaye gis na ko na ko assumer